Charlie mosul bëre wax. nga mhm. bëre ba kii dem boo ñaay arène nationale yow ak jant yi. Mhm. ci benn ñoo mhm. xam te ci làmb lañ bokk ci bëy sax euh, bu daan am sax ay combat perte Tafa Gueye. daana wax mhm. mhm. mhm. ah, ci combat waaw foofu dinaa ci sawar a tontu parce damay nuyu suñu père Tafa Gueye waaw balaa dara xew di ko jéggalu te naan moom mérité loolu ci làmb amaana bi may wax dama waxee euphorie boo xam ne maîtriser wu ma sama bopp di wax dama ciy tuub di jéggaluwaat ba dégg naa ci sama naataango Serigne Ndiaye mu ciy tontu damay wëlbati di jéggalu waa Fass yëpp waaw parce que nit la juum na reconnaître naa ni juum na Père Tapha suñu per la moom am na droit wax lu ko neex ci ñun mais làmb jooju dafa doonoon làmb joo am daf ma yitteloon trop. tolloon ma foo xamante ni dafa métti woon ci man ci bépp côté ba ñëw ñu ñëw si làmb ji xam nga mu demee noonu comme ni mu demee manaan daanu ma mu ne moo daan bañ dugal recours après moom bi mu commentaire wax version automatiquement ni ma réagir war ma xoon réagir. ok waaw parce que dama jàppoon ni recours bu xasee dugg kenn waratul valider victoire. boo xam ne jógewul au niveau de CNG parce que dafa am ku contesté waaw man foofu laa réagir. waaw parce que man dama jàpp ni moom influence la ci monde làmb parce que grand champion la ñëpp nangul nañ ko ko xam nga ba pare axlu làmb dañ koy déglu ndax xalaatam otomatiquement man bu mu defee version boobu man dama ne sama gars yi automatiquement billaahi man leen CNG du ma du génne victoire du kase verdict jam dinañ ko valider victoire am ñu ne ma noonoo kayit bi génnagul man leen ndaanaan moo wax wax naa li may wax nag mais ku xam dafa ngay xam ne ndaanaan la maa ngi tuubaat di jégalu di ko jégalu moom sama père la xam nga ak ñoom Serigne Ndiaye waa Fass yépp waaw maa ngi jégalu ñëpp. respecté ci doomu aadama. Mhm. amaana peut être Birame Souleye Gueye moom ko ni mu waxee rek làmb la. Mhm. moom bu waxee rek ñëpp nangu ko ñu koy nuyuwaale nag bu baax a baax a baax a baax Birame Souleye Gueye. ah sa combat ak Deme Deme gis nañ ko ci état bi. préparé ndax ñëpp ñu bari yow dañu ko faral nga bëree jënd lan moo xew dañu ko béy da nga ko maîtriser woon jëndee wala que ni da nga ko xewoon. waa gars yi buñ ma joxee favori dernier moment lañ ma ko jox. ndax man combat bi may dem États-Unis yóbbaale wu ma ko combat bi fa la ma fekk foofu lañ ma woowee proposé ma Diam man leen bu paree pare na ma jël ko ànd seeg sama grand frair Boga mu ngi foofu moo ma jàppale entraîné ma préparé ma bu baax ma ñibbisi Diam bi ma ko jëlee man sama staff si boppam am na ñu bari ñoo xam ne nanguwuñ dañ ma ne kii munoo ko daal bàyyi ko ndax gis nga mbër yi mu bëreel. bu dee gabari ñoo la ko ëpp bu dee doole ñoo ñoo la ko ëpp te dàqoo leen bëri man leen ok dégg naa leen ma woo leen téléphone ñoom ñëpp ne leen man su ma amee mbër bu may moytu ci làmp mieux vaut ma teel a bàyyi ndax xale la dëgg la tollu ma ni mbër yi nuñ toll comme nga xëy gis ko mu ngi yor maas bu bëri su ma ko bëggoon matuma deux mois mais man toujours dama bëgg a rester foo xamante ni maa moom sama yaram nu ma bëgg a def dinaa ko def man leer na ma ni su ma tëddee ba suuf billaahi mënu ma ëpp doole mënu ma dàq bëri. waaw kon adversaire bu nekk ak nu ñu koy préparé man bi ma ko jëlee ñëpp dañoo ne Jet day xaru lan moo tax mu jël Diamthiery Diamthiery day dóoraate day nangam xam nga expliquer seeni détails man ma gëm li ma gëm ànd ak samay entraîneur liggéey mooy moo coach ak lépp suñu entraîneur bi ma ko jëlee xam nga la la ma billaahi ak waxtu bi mu ne ma jël li ma ne ko waaw mu ne ma jël nga champion jël nga der du bàyyi bu dee bëre ëppoo ko bëri bu dee doole instant bii ni ma gis nii mun a ah, mun a ma moo la ëpp doole. mais lenn laa gëm ci yow mu ne mu ne ma am nga fulla am nga fayda soo bëggee dara di ci dem ba jeex te gëm naa ni soo liggéeyee ba bis ba waa ji du la ëpp doole na nga nangu rek ma ne ko maa ngi nii daal ñu ñëw ñu entraîné entraîné ba mu yàgg mu ne ma ah, jet ma ne ko waaw mu ne ma instant bi sama xel dal na nii moom yàgg jëm ci yàlla rek a ci des ma ne ko ok ba biñ naan combat bi des na lan trois semaines sama gars yi dañuy ñëw géej fekk may contact booy ñu may daan <laughs> ñu ne kii jamteer dina ko rey man leen man xambala laa mu ne ba bis ba parce que moom lañ joxoon favori man leen kii du fagori si man mais man maa ngi ko garde ci sama dënn bi ma ñëwee làmb ja bi ma simmeekoo ci lañ ma delloo lépp ak làmb yëpp ne Jet mii moo war a mën a daan jam ceeri mais jam ceeri man du ma ko sous-estimer champion la te li ma xam ci moom taxu ko bari parce que après maa ngi koy déglu mooy bi ñu ko invité Lady Tigre mu ne Jet Li benn loxo la doon xeexee waaw ku xam sartu xeex dañ la naan sa góos bu dalul sa droite amul droit jóg su jógee te góos bi dalul yaa joxe sa bopp Ah, te moom dafa am benn crochet long boo xamante ni saa yoo dóoree inde bu la ko dóoree nga jël ko waaw ah, kon noonu laa mënoon xeex moom di ko benn benn ba mu jox ma boppam waaw looloo tax sax làmb bi toll foofu. Mhm. Mhm. oh jot li léegi def na 17 komba mhm. parce que 4 défaites la mbaytin moo ma daan. Laay Pythagore Bébé Saloum <laughs> waaw waaw. dafa timide day mel gi moo bari te man moom dafa yu bari yoo xamante ni man moom sama timide yëpp eggul biir géew waaw mën naa timide xam nga comme safara bi ñuy wax te Sénégal lañ ne su ma xëyoon léegi léegi xam nga tey léegi maa ngi wax ci Père Tafa Gueye automatiquement ñëpp na jël li xamee wuñ ko lool waaw ku nekk ak stratégie bu muy demee waaw parce que man tey yàlla timide la ma jagleel damay timide keneen ki nga xam dafa am euphorie waaw suñu borom loolu la ko jagleel xëy na moom mën na loolu mais man am na wax yoo xam ne mënuma ko am na jëfin yoo xam ne mënuma ko foo bi nag yàlla suñu borom moo ñu ci natt ñu nekk ci man ñu bëri dañ man ba ci soog su may préparer combat lan la ne yow ibaadu nga de parce que yu bëri duñu gis ma koy def waaw mais nag lépp lu mbër di def dama koy def ba mu des lu bon waa ñaan dafa yaatu ñaan yaatu na te kaamil bi suñu boroom lim ci def boo tasee ku ko mën mën na la cee dimbali ci lu bari loolu moom du sama yoon mais man sama làmb sax boo ma xoolee man balaa maa dugg ci géew bi set naa wécc waaw mhm. làmb tay la rek day jeex waaw bu suba boo ci defee loo xam ne waroo ko def suba réccu ngay mujje war nañ bàyyi xel lu bari am na yoo soo koy def bu la jàppul léegi dina la topp te mun nga lor sa njaboot suba waaw. Mhm. Mhm. <laughs> waaw mais mais ond lu mu wax. Ah, ndax ah, euh, euh, mhm. mhm. mhm. ci li ngeen wax yi. loolu ngeen jàpp. non parce que euh, soq. moo am combat. combat bi amatul moom gàmm ko. non da nga naan ñi ñi ñi ci xam. waaw non déglu ma de. waaw déglu ma ñëpp on naa ba def après jël à face. yow. yaa ngi nii bëri nga daanu. non balaa maa daanu damaa daan. waaw yéen. Mhm. combat ba combat daal mooy déedéet na xam sosaan li fa am ci écurie yëpp yàlla xam sosaan rek loo ko may. écurie bi tey buñ nekkoon exemple cent quatre vingt dix huit yëpp ci koñ bi lañ dëkk te boo xoolee. li ci ëpp ay mag ak rakk lañ ñii ñoo bokk ndey ak baay maanaam équipe bi lu ci ëpp ay mag ak rakk ci ëpp ñun ñëpp ci benn gox bi lañ dëkk keneen ku ci jóge feneen ñëwit boo ñëwee da nga ciy gis sa bopp ndax ñun duñu sujet si mel nit boo ñëwee sax dañ lay gën a yaatal ba nga dugg suñu biir kon xam saan li fa nekk suñu borom moom rek la ko xamee waaw te tey comme li ñuy wax rek. écrit dafa yaatu man jot bi may am pour ñëw xëy na yow da ngay am empêchement boobu doo mën a ñëw mais écrit bi ñu ngi entraîné on bi muy wax loolu xër moo ko jàpp parce que dégg nga dafa cité ay noon te boo xoolee tey ñooñu mu cité ñu si ëpp comme tey jordaan fi mu dëkk dafa sori muy dëkk ba si boo amul combat du mën a ñëw ci sama xalaat bu gàtt Naar Sogas mu ngi fi mais. suy wax ci côté boobu noonu dafa ne naar dafa war di ñëw te naar day ñëw temps en temps mais xëy na jotam moo ko moyul muy ñëw chaque jour waaw xam nga yooyu yëpp ay détails la yoo xamante ni waaw soo moom gars yi ñu ngi ñëw gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw entraînement waaw xëy na moom dafa bëgg gars yi comme mobilisation bi amoon bu njëkk maanaam buñ ne tey deux heures ñëpp dañuy dem diin maanaam bu ñu nee deux heures rek yow da ngay gis midi ñëpp tase nañ fi ñooy dox àndandoo ba ci diini entraîné bu ñu paree àndandoo ñëw looloo nekkoon force xam su cosaan waaw mais léegi comme exemple xam naa fi muy waxee mooy que ni léegi kii day dem diin bu paree ñëw saal contact xam nga jëlatuñu benn emploi du temps boo xamante ñu ko ciy def bareetul emploi temps boo xamante ni tey dañ naan suba diin la ñuy dem gannaaw suba ñu dem def long et xam nga bu subaa jeudi vendredi maanaam quatre jours yi si des yëpp dañuy contact waaw loolu lay wax te xam nga période boobu noonu mënul woon am ndax combat yi bari woon na bari goo xamante ni waaw booy yi ñu ne woon ci salle bi yëpp am combat dafa bari munoo xeeb komba wu booy jox sa combat valeur koo xeebal bisam yaa ko rey bari na ku ci mel ni Eumeu Sène Eumeu Sène moom boo xoolee ñun ci képp wetam lañ màggee bokk na ci ñi ma njëkk a wax demal bari ji waaw géej la ma fekk may fubal mu wax ma ko Balla Gaye tamit ndaanaan la bu mag ndax buy bëre tamit dama ciy gis sam bopp bu baax a baax waaw ndax moom moom bu jàppee du bàyyi day def li muy def waaw ama sama relation ak moom mu ngi mel ni maag soq rek noonu la demee rek ñun mbëru Pikine yëpp muy ama di Boy Niang comme ci mun a doon ñun amuñu sens interdit fenn parce que dëgg la ñuy dund man du ma kenn yàlla ngi ni te gisuma ko kenn jaraluma ko waaw su ma amul xolu cofeel ci yow am naa maantu bu toll ni damay reste sama koy suñ tasee ñun nuy wante wasalaam ku ne dem waaw mais ñun Pikine man bokk aw ma ko fenn Ama woo Eumeu Sène Boy ak Sokh ak bi voyagé ñoom ñëpp ñun ñëpp ay gain lañ. waaw cent pour cent mu ngi dox parce que boo amee sa combat nit ñi dinañ ñëw sa kër ñëw conseiller la jàppali la ànd ak yow dem esat kon 100 pour cent bu mënul weesu loolu. bu baax. Mhm. sopp li ñu dese ci wàll jant li ñu dese ci jant li ñu dese ci parce que après nga dagg bala mu ne kii damaa kii. dara dara xam nga soog soog sama noonu la te te mu naan ay damaa kii wala naa nga papa yi Mouhamed koo koy papa yi Mouhamed ah. waaw moom la de. ñu jant. li ñu dese ci wax dëgg yàlla de mën nañoo ko jéem a. kontaan nañu ci dëgg la. waa maa ngi ci daal maa ngi xool. Ah. waaw incha allah. yaa bi. oh MMA bi non non dugguma ci maa ngi maa ngi xool beneen daal. dangaa waaw dóorante gi mooy loolu de. bu <laughs> man daal maa ngi nii daal fu ma gaa yi bëmbax rek ma dem incha allah ah. waaw. Ah, waaw yi balaa dara waaw dañuy remercier rek. di nuyu waa àdduna yëpp di leen nuyuwaat sax la ñuy wax waaw. naan corona mi yàlla na fi jóge jàmm jóge ci àdduna bi yëpp ba nit ñi mën a delluwaat ci seen i yitte waaw ndax li mu téye bari na di ñaanaat président mu tijji jàqe yi ñu jël mesure yoo xamante ni ñëpp dinañ mën a julli ji waaw comme bu ñu tijjee école yi moom ba jël mesure yaakaar naa ni école moo gën a populaire jumaa ja ndax école li fay tasi ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll waaw te jumaa ja waxtu ñu fay def yàggut waaw nañ ci jàppali ñu ngi koy ñaanaat mu tijju ko gars yi jël mesure yëpp pour mën a julli ji di nuyu sama soxna bu baax Binta Touré maa ngi koy nuyu waaw di nuyu sama yaay di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax a baax waaw di naan maire yëpp waaw suñu yaay maanaam dem moo nekkoon fête des mères ah. waaw ñu ngi leen di sargal bu baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wér bu baax waaw di nuyu Sophie Touré waaw di nuyu faatu ñoom awo sama rak yu jigéen yi yëpp ñoom Assou Mariane ma kenn waaw di ñaan daal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw di nuyu tamit sama Malick Gakou ah mooy Omar Sow boroom Jetli création waaw naan la jàmbaar dundal yàlla na la cat seexlu yàlla na la yàlla làq fu yàq agut suñu boroom mun na ko sañ na ko yàlla nañu ko yàlla defal di leen ñaanal yéen it xamba seen liggéey bi ngeen am ci lu kawe seen njort waaw bu baax a baax a baax di nuyu itam sama grand bi Badou maa ngi koy nuyu sama grand bi ma waaw maa ngi koy ziar bu baax grand bu baax la waaw ziar naa ko bu baax waaw di nuyu sama nijaay jibi joolaa tamit waaw sama fami yépp maa ngi nuyu ñëpp macha allah. di ko bëriwaat nag bu baax a baax moom jàpp ah, di ko ñaanal jàmm ak salaam wala ñu mu ni wax dëgg yàlla ñu ko xamee dana ko am bu baax day koo xamante ni bëgg yàlla am respect si ñëpp ko di ko sànq wax dëgg yàlla am ñoo ni yaay am nañ benn yaay mais ay yaay lañu am di leen ñaanal ñu am bàyyi seen njaboot yaay lekk dara bàyyi ay doomam yaay lépp mu am ko kon ñu ngi leen di souhaiter encore une suñu maman yëpp di wax daal maman yëpp rek ñi fi nekk yal na yàlla guddal seen fan ñi nga xam te dañoo génn àdduna yàlla na leen yàlla xale aljana te ñu nekk dàkkale du foofu ñu jógee di ko bëggee war bu baax a baax lay fatigawul Basiru Diouf naan nga yow sama séeréer bu rafet bi dama lay ñaanal bu acca rek ciy jàpp bu baax a baax a baax yow bañ na ko information boo am rek nee nga ah, ah, sama sama xale yi ñëw leen dem jëli ko di ko bëggee waat bu baax a baax moom Bachir ak Ousseyn ñi nga xam te ne ñoom lañu bokk liggéey bi tamit di leen ñaanal gudd fan yu wér naan leen comme ni ñu ko waxee rek wasaare famille amul kii amul kii kenn ku nekk ca lu nekk rek yaa ngi jàpp mais di ko liggéey waat nag bu baax a baax a baax nga xam te ne tey day def anniversaire am mu nekk koo xam te ne kenn la ci nekk sama mag nekk sama xarit nekk sama chéri nekk sama lépp muy Aliou Seye numéro 2 di ko ñaanal gudd fan. Euh, mais Diaz euh, waaw waaw waaw kilifa googu ñu ngi lay ziar Diaz sëy allez Kodo joyeux anniversaire ah dundal cent ans cent onze ans sans ordonnance waaw yow yàlla na la suñu borom fay sa xol ndax grand bu baax nga waaw te moom tam am na benn xeetu bëre boo xamante ni ci moom laa ko jëlee te ba léegi maa ngi koy bëre te boobu xale laa woon boobu mook jordaan ñoo doon bëre. bëri naag Jordan ma seetaan ko bëri naag Naaru Sogaas ma seetaan ko waaw te boobu maa ngi nekk booy mais làmb tukulóor la woon waaw moom daanaan la moom it te xol bu rafet la yor waaw def nañu mag maanaam def nañu ay rakk daal waaw fu mu ñu gisee jox nañu cër bi ñu moom ndax yaatoom waaw moom it ñu ngi koy ñaanal jàmm ju bari ah. le 11 mai yaa ko moom kon li ma ko wax nee yow kenn nga ci man parce que da nekk suma lépp sama conseiller dina la ñaan rek gudd fan ak loolu borom xol jamaa bi borom xol or bi di la ñaan yàlla lépp lu mën ren yàlla nga ko mën déwén waxee rek yow na ko yàlla defal bu baaxul ci yow tamit sa xol Aliou bi sama chéri sama xarit dundal dundal dundal dundal dundal dundal yow daal dundal rek rek yow xaritu ñëpp nga yow yow yow yaay papa yi gone yi daal yow dundal bas ñu tàggoo pour tàqalikoo rek dem seeti beneen daanaka jaajëfal woon après ñu dem xool keneen dem gën ak yéen day continuer jaajëf sama gars